dafa am sunu ay wëllëre fële ci ndugaar ci naa jag ci ja jam ñaajo la bokk léegi sax ndax jam ñaajo ba mu jógee ba léegi ñëpp dañu tëb nii bu fa baadooloo dëkkati ndugaar nit ña nekkoon di ay wëllëre dañ leen fekk seen néeg seen kër yi génne leen ci biir di toj kër yi te ko defe naa benn sénégalais du ko nangu man gëm naa ni sax président Macky ni ma ko xamee ci bëgg lu rafet ak jub su ko yëgoon dana ci jóg ñu ngi koy ñu ngi koy jottali am na lu xew ca Ndugaar ña ngay ña ngay ña ngay ña ngay néewal doole sénégalais ya fa nekk jël ay terrain sénégalais jël ko nangu ko jox ko yeneen terrain yeneen sénégalais man mi nga xam man jànguma sax ak luwaak yooyu terre ay suuf yooyu waaye ne xam naa loolu jaaduwul même soo demee ci pays juif yi nga xam dañuy nangu palestiniens seen suuf dañ ko nangoo noonu nga am sa suuf am sa terrain am sa kër yi ñoo nangu ko jox ko beneen sénégalais soo ko dafa nekk réseau d' état état bi yooyu da ko soxla maa maa mais beneen Sénégalais ba nga nangu nga ñëw négocier yow état bi mais ñëw de nangu toj ñu ngi koy bàyyi ak mi ngi ñëw su dana ko faram-fàcce bu baax. gannaaw loolu itam am na lu xew ca Ndugaar Ndugaar ci euh, mi ngi bokk ci jam ñaajo e loolu itam daañu yëkkati sunu kàddu ci ndigalal sëriñ bi ay mbokk yu fa dëkk ëpp nañu fa fanweeri at fa ñuy suul seeni maam ak seeni baay yëpp ñu yàgg fa waaye ñu xëy rek ay nit ñëw ni dañu leen fay jële toj seen kër yi indi ja ba am na lu fa naroon a xew sëriñ bi moo ci teg tànk ni leen déedéet bu leen xeex bu leen def lu dul noonu da bàyyi leen ñuy wax ci ñiñ ci war a waxal parce que xam na ni réew mi itam dafa am kilifa te kilifa bi fi nekkit yàlla def na mi ngi déglu peuple bi te itam jàmm rek la bëgg loolu itam ñi ngi ko koy yëgal ak ci ñi nga xam ni ñoo ko jiite ndax itam ne neexul nit fu mu fu fu ay maama ci fu ñu leen denc ëpp fa fanweeri at rek ay ñoo ñuy wax ay deskat ak ñu façon ñëw rek indi seeni armée loolu baaxul te ñooñu bu ñu bu ñu bu sëriñ bi waxuloon ni leen bu bu leen def lu dul noonu mën na am leneen dana ci xew waaw loolu ñu ngi lancer di ci jiital président mom mi nga xamni ne nitu jàmm la waaw koku euh euh euh eh, ndax legit loko contre contre xam nga ni nopp yu gudd waaw loko waxit xam nga ni nitu jàmm la nitu dialogue la waaw loolu dal na ci na ci wax nu mu gëna gaawé ak ñi nga xamni ñoko ñoo ci domaine nak ñu mel non ndax li bu bu continuer mën na jur lenen